boo xoolee sur le plan sur le plan sportif c'est-à-dire que sur le plan compétitif ku resté deux ans joué ça sera très difficile nga nga nga nga nga compétitif surtout mu ne dans un tournoi rapproché. maintenant moo ma ne sur le plan compétitif maintenant y a y quand tu prends un, groupe y a la compétition y a le match et il y a la gestion du groupe il y a le groupe il y a il y a, y beaucoup de choses qui viennent qui, qui viennent xam nga entraîneur buy jël sélection euh, maanaam mën na jël sur ñoom douze douze dañuy sur douze yi mën na jël dix. yoo xam ni ñu ñëpp ci d' accord. la liste si est dix neuf. ah dix neuf c' mais buy dem afrobasket bi douze rek lay jël douze voilà. Ah, euh, bon déjà dans dans les dix neuf day jël xool est ce que est ce que sur le plan euh, compétitif ak y' a y' a d' autres paramètres qui rentrent en jeu ah mën na ko jël sax boole ci douze yi ci douze yi. xam na ni bon y' a a huit neuf qui vont jouer la la la majorité des matchs mën na del jour boobu doyee ko ci ay deux minutes am na am na lu ma ko mën doyee même même dans le groupe dans dans dans l' équilibre y' a beaucoup de choses qui font que qui qui font que euh, un entraîneur mën a sanctionner benn jour parce que euh, pour pour x mm-hmm. mais quand je quand maintenant sur le plan euh, sur le plan intrinsèque. ça sera très difficile qu'il soit compétitif. mais ñàkkul ne fii Sénégal même sax ba ci bitim réew. am na peut-être am nay joueurs parce que boo ñi nga xamante yàgg na saan li nga xamante moo di championnat bu Sénégal bu ñu ci wàllu basket am na ay joueurs yoo xamante ni vraiment ay mel ni Kouna Ndaw nekkoon li nga xamante moo di ren bi wax dëgg yàlla euh, waroon na am place fi nga xamante moo di ci liste bi malgré que moom vraiment war na ay ay ay ay talent moom non mooy li may cest à dama la expliqué toi ba ni euh, quand un entraîneur def euh, prestation 19 xool mën na dem boo boole ko ci douche yi bu boole ko ci douche yi am na yeneen paramètres yoo xam ne day day day day dugg en compte cest le privilège de choix. ça appartient à l'entraîneur. et uniquement am na yoo xam ne maanaam tey bon bu ñu doon def liste yi ñun Sénégal yi dana am dix ba onze yoo xam ne ñoo koy bokk. Hmm. mais dana un boo xam ne mënuñu ko bokk ñëpp. kooku maintenant kooku euh, boobu. entrepreneur moo xam ko ça appartient à l'entraîneur